wasallam asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw bu ñu leen nuyoo ànd ak leen ñaanal jàmm ñoo ngi dellu soir rek ci kàddu borom bi taaraka wa ci waxtaan wi ak laaj yi am na solo ndax it eh, lii mbokk mi di laajte bokk na ci maanaam jamono bi ñu toll ak jamono ni mu jafee parce que dafa nekk ci loxo yi ñu jafe loolu moo waral jamono jafe waaye lépp a ngi fi bu dee xéewal yàlla wàcce na ko fi lu mu mën a doon ci loo xam ne dafay war a ñoŋal dundu doomu aadama ba mu am jàmm rek loolu macha allah yàlla wàcce na ko ci àdduna waaye nag comme par exemple mbir mi diine jiitewu ko moo tax jàmm du ca mën a am léegi nag kon nit ki nan lay mën a taxee pour mun a am jàmm ah li tax nit ki ni muy mën a taxee pour mun a am jàmm ñaar rek ñooy mun a am jàmm kenn ki day am jàmmi àdduna ak alaxira kenn am jàmmi àdduna kese maanaam da ngay mën a nekk yéefar ak sincérité nga am jàmmi àdduna te sax sa jàmm day limité wu parce que foo toll yaa ngi jéem a lijjanti loola aar waaw ci ay matériel ak ay affaire yu mel noonu moo tax sa fit na foofu lay jaar do amoo sax xel mu dal kon daal booy seet jàmm kenn rek moo ko mun a am mooy ab muslim waaw moom day am jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira waaye keneen ku dul kooku maanaam lu ga jamono gën a dem maanaam ñoom ñuy gën a sonn muslim musrik ci la bokk musrik ci la bokk nit ku réer ci la bokk yéefar ci la bokk naafeq ci la bokk rambaaj ci la bokk siyaat na ins ci la bokk awliya seytaan ci la bokk ak ñi gumba taxlu ñu fooy seen xel ak ñu réer seen diine ci biir ñooñu ci la sàcc yi nekk yaa ngi dégg ak borom ñaari tur yi ñoo ñëpp ci fitna la ñuy nekk waaw parce que seytaane mi lay digal maanaam moo lay weer loolu moo tax weerante gi fi mu toll nii tey du dellu gannaaw parce que seytaane mi lay digal maanaam ngay dugg ci ay ay luxóor maanaam moom moo lay tegaat ci mbedd mi encore ci kenn rek mooy ki nga xam ni moo mun a am jàmm ca jàmmam nen na lay demee gis nga muslim bi